ayca bàkk ba jib na générique bi départ na wasaare làmb tàmbaliwaat na ak jàngat làmb mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax mm, ku ci nekk sa tur ak sant di jaajëfal bu baax a baax mbokk internet di seetaan wasaare làmb ni leen koy defalee saa su ne ma ànd ceeg sama papa euh, Père Birahim moom la ñu fas yéene waa tey indiwaat yeneen combat jàngat ci làmb comme ni ñu ko defee woon bi passé may wax xale yi rek nga xamante ni làmb rek lañu bëgg làmb rek la ñuy dund ci làmb rek lañ mën a jàngee lu baree bare bu ngeen amee ku mel ni Père Biraye mu leen di jàngal saa su ne ngeen ciy seetaan da ngeen di taxaw concentré wu ci euh, bàyyi ci xel bu baax a baax per maa lay nuyu. waaw jërëjëf auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh sadri wa yassir amri wahlul uqdatan maa ngi nuyu waa Wassare Lamb ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi safoo site bi di ko seetaan eh, di nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp di ñaan ci yàlla jàngoro yi nekk ci biir monde bi hmm. lëmbe ñëpp yàlla nañ ko yàlla teggil ba hmm. kenn na ku leen dellu sa sagab go rakatu di nuyu sama doom uh, jiiri hmm. ak di ñoom di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo mu nuyul ma ñoom uh, Basiir ak ñëpp ak gaa yëpp bàyyi waat màgget ak xale yi ne ci gisu bi yëpp daal. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp di baax a ñëpp. Mm-hmm. di fas yéene waxtaan ak yow ci làmb ci sama sama xam-xam li ma ci toll. Mm-hmm. père tey dañu indi benn combat. mu nekk euh, ñaari combat yoo xamante ni euh, combat bi combat xale la. parce que bu ñu nee Serigne Ndiaye 2. wax xale bi nga xamante ne bokk na ci révélation wu Fass yi euh, muy bëreeg Libidor mu doon combat boo xamante ne ñu ngi ko tëggoon fële ca stade. Jom Ibamar Diop journée Dieye production moo ko tëggoon décembre bi bi weesu. mu doon Ibamar la woon wala fële ci. stade Ibamar Ibamar la woon ah, Ibamar moo ko tëggoon. Ah. Euh, mu nekk combat boo xamante ni ñoom ñaar bokk nañ sax ñu mujjee bëre stade Ibamar ah. mm-hmm. ñoom ñaar parce que euh, yaakaar naa su ma juumul mooy bëre dóor bi fa mujj sax. Mm-hmm. ci diggante ñoom ñaari xale yooyu. mu doon combat boo xamante ni combat bi euh, gis nañ ci. Euh, ni ñu ko yaakaare woon ñaari mbëru simple la mais bëre bi ci dóor mu daanu la mujj léegi nag dañoo bëggoon ñëw analyser combat bi nga xool ko jàngal euh, Serigne Ndiaye de ni mu def ba am ndam li bi doon ni mu ci def ba am defet waaw bala maa ñëw ci analise bi wax ci sama xalaat dinaa la hmm. wax ci ñaari xale yooyu hmm. parce que ku nekk seetaan naa la seetaan naa Serigne Ndiaye numéro de seetaan naa tamit li bi dor hmm. seetaan naa bëre ma la seetaan naa ko mu keroog jom dëgg la bëree parce que jom pakala doon na ko yoo xam ne keroog bi mu riposté ba dellusiwaat ah bëree ba jeex na. Hmm. moom nga xam ne mbëru jom la. Hmm. gis naa bëreem gis naa tam xale boo am avenir parce que seetaan naa ay bëreem yu bari daal. Hmm. ci mbappat yi yeeg yooyu quoi mu xaw xale bu am avenir. tamit bon xale la boo xam ne bii euh, moom it mu ngi ci bonne foi moom it tubaarkàlla. waaye li ma leen di yokk rek mooy bala ñuy dugg jaraas mooy xale yi. nañuy fexe di yokk seen xam parce que xam boo ko yokkul day am day day stag nag day am maanaam day fu muy yem. dëgg la parce que nit mënut a xam lépp jëli. déedéet. da xam ni rek sa morom xam ni kii man lii kii la looloo war de même technique bi ngeen def nii kii day aay ci lii kii aay ci lii kii aay ci lële. Hmm. su ko defee ngeen bu ngeen boolee seen xam-xam mu doon xam-xam bu hmm. yaa ngi dégg li ma parce que am na foo mënee te Bachir mënoo fa. Hmm. am na foo xam ne màgget mën ne fa te man mënewu ma fa. kon loolu xale yi nañu yokk seen xam-xam. parce que ñoom la ñoom ci làmb ji tey jii suñu góorgóorloo ay avenir la ñoo xam ne yi ñoom fu mu loo nekk tey Balla Gaye nekk fa ñeneen nekk fa. ñoom la dëgg ne fa ñoom euh, tay ñii ñoom ama euh, euh, seen ak ñoom la dëgër ñoom fa la ñuy nekk ñoom mm-hmm. parce que dañ ci fi tollu ji waaye kon dañu yokk sama lii laa mën tey bu ma jàng jotee ma bàyyi loolu dem jàng leneen mm-hmm. pour yokk sama xam-xam mm-hmm. loolu laa leen di waxtaan ñu door a ñëw nag ci analyse bi tey nag ñu ñëw ci parce que analise bi ma li ma ciy jëkk a wax mooy taxawaay bi ñëwal boo Serigne Ndiaye numéro 2 moo féete càmmoñ kële moo féete càmmooñ mooy libidoor libidoor mm-hmm. mais libidoor mm-hmm. pied gauche lay teg ah, mm-hmm. kii pied droit lay teg xam nga pied droit ak pied gauche toujours ma wax leen ci analyse ci biir bëre ñoom ñaar kenn ku nekk am na ci koo xam ne bëre bi da koy jubu mais am na koo xam ne bëre bi du ko jubu mais ci man ci sama gis-gis nag nga xam ne moom laa yaakaar ne loolu laa yaakaar ne moo am libidoor mii bëre bi jubuwu ko lu tax ah, waaw parce que moom bëru songkat la mën naa di ñaan moom mënut a song kii parce que looloo tax ci bëre bi mu dem dem de pas de côté ba côté bi xamul nu muy ubbee bunt bi pour ñëw ci Serigne mhm. waaw loo tax Leewtoo bi moom may distance moom may distance Serigne Ndiaye. Mhm. parce que Serigne Ndiaye njool la ci moom. Mhm. te njooloon ndaama su ñuy dajee. soo bëggee jot njool bi da ngay bàyyi ba mu yóotu la nga jot ko parce que olof dafay wax ne. ndaama du yootul njool. déedéet. ndaama saa yu ñu yóotoo njool bu dajee arrêté gauche rek toog. saa yu dajee contre parce que ki la ki su le relance nga tëb di ko yóotu bu la contrer toog ngay def parce que nga yóotu taxawatoo parce que da boo ne yemee di yóotu sa tànk ba ca ginnaaw du tegu benn tànk a taxawee di am doole hmm. kon a taxaw benn tànk di am léegi soo tëbee di dóor yi da nga dagg say tànk wàcc taxawaay yoo waa ji bu dee bëgg ñu nga daje ko yéegal moom loolu la ko bi dale hmm. mais loolu nag moom kii indiwu ko tey. ay ayca ñu dem ci kombaa bi. waaw. Hmm. Hmm. Ah, gis nga ko. toujours Serigne Ndiaye toujours moo gën a moo gën a jot loxo voilà. gis dagg na leetoo dagg na leetoo bi. mais ba tey taxawal. dagg leetoo ci làmb. ban importance làmb. leetoo ba mu yàgg nga dagg ko jëm ci benn wàll bi jëm di joor wala nga jëm ci am. non boo déggee ñu naan dagg leetoo du loolu. dagg leetoo. mooy nga nga fléchir les jambes. ba sa bras au lieu ngay léewtoo mu tàlli nga di ko dagg. maanaam ngay def nii wàññi say loxo. loolu piège la ci biir bëre. pour waa ji bu pour tëbee di jooti nga mën a tàllal. parce que fii ne su ma daggee sama loxo nii su ma léewtoo yi dagg sama loxo nii. foog nga ñëexuma pour jigee ma. su ko defee man moo tàllee sama loxo rek jox la loolu mooy dagg léewtoo. mais dagg léewtoo lii ñu ngeen ko waxee du noonu. léewtoo ba ngeen dem làng gi. nga bàyyi léewtoo bi ñëwaat ci biir géew bi. loolu du dagg léewtoo dagg mooy mu ngi mel ni nga dagg say loxo maanaam sa loxo au lieu nga di ko tàllal nii di ko léewtoo nga nga téye ko nag nga bara nga dagg bara nii dégg ngeen bu ah. baax ah, yéen yaakaar ni lii déedéet ah. lii mooy dagg léewtoo da léewtoo mooy maanaam au lieu nga tàllal say bara mhm. nga dagg loxo yi ni nga koy daggee nii mhm. muy dagg léewtoo bi pour waa ji gën laa jege parce que piège la mhm. boo daggee léewtoo bi rek waa ji fukk distance bi ngay bàyyi foog mu ñëw laa jéem laa jege pour nga xam ne boo dóoree mu daal boo songee jàpp ko loolu mooy dagg léewtoo hmm. ñu dem pour ñu xam ñu xam ñu naan dagg na léewtoo ba hmm. mais lii dañoo dem ba làng rek ñu di suwaat ci biir géew bi hmm. loolu la ay ca ñu dem waaw parce que ñoom ñëpp kenn daggu ci léewtoo ñoom ñëpp ku ci ne sa boraa ngi tàlli ba mu jeex waaw Serigne Ndiaye dafa mel ni dafa bëgg a jeexal combat bi fii mais xoolal mu ngi dox tànk di jëm ci Libidor waaw mais Serigne Ndiaye comme njool ndaama la te moom moo ko moo ko sut mais toujours day fexe nu mu kële nag moom moo waroon déplacement nu mu ko bëttee su moo waroon a fexe rek nu am song bu baax. mais song bi pour mu jubale pour nga mën a ñëw ak am li nga bëgg nga am ko. ni mu taxawee du ko mën. léegi nag mais bu fekkoon tànkam bële ci ginnaaw. droitam ba da ko indi teg ko. seen ñaar tànk day jàkkaarloo. léegi nu ko neex la koy jële mais loolu nag doo ñëw ba làmb ji door ko entraîné da koy entraîné ba mën ko. ba boo ñëwee bu kii tegee gauche nga teg gauche bu tegee droite nga teg droite. waa waaw ah, ñu ngi ci Leewtoo ba tey. Hmm. ci Leewtoo ba tey gis nga ko ba tey rek toujours ku ne mu ngi ku ne ngi yaru sa morom rek. Hmm. gis nga xam nga cokkaas na benn yoon. Hmm. xam nga cokkaas bi mu cokkaas nii cok téel fii xam nga cokkaas bi mu cokkaas léegi moom. mais gauche bii. dafa war fii ñëw laaw crochet bële crochet gauche bi. bas dellul ma tuuti rek ci cokkaas bi dellul ginnaaw ah. tuuti. waaw ñëwal. waaw fii la voilà bàyyil mu dem. bàyyil mu dem. waaw. cokkaas na xam nga cokkaas na hmm. mais dafa laal rek du coup bu ñuy wax hmm. da ko cokkaas bi mooy mënoon na paale daw loxo bi hmm. daw yéeg ko yéeg ko gauche bi maanaam pa pa loxo bi gis nga xam nga loxo wàcc na waaw dellu si da nga koy indi ci cokkaas bi da nga koy indi ci Serigne Ndiaye joxañee rek nga téye ko foofu waaw jam ñu ngi dem ñoom ñaar waaw ñu ngi demee de côté ba tey mu nga waaw gis nga ñi dem waaw. voilà gis nga bi mu jokkaasee fii. Mm, mm. léegi nag pa mënoon na ko paare bi daw loxoom bii mu pare mm. daw yéeg ko. day baare loxo bi daw yéeg Serigne Ndiaye. waaw gis nga paare yu loxo bii. da koy paare ko daw yéeg ko. mais nag day fekk mu def un pas avancé pour jot ko. mais bu deful un pas avancé bu ko paree du bu ko yóotoo du ko jot. parce que day sore bi bi day sore du ko jot. mais fii mu ne nii nii Serigne Ndiaye jokkaase nii. loxoom bii mu paaree nii mën na ko paaree daw yéeg ko te bu ñu paree naa la woon. waaw parce que lii tey jii nga mooy mu ngi mel ni nga. dóor ca wan ma seetaan nga dóor ma dóor ma pare daw yéeg la gis nga ko nii la waroon def. Hmm, su ne nii ma pare nii daw yéeg la gis nga hmm. nii laa nga ma lancé ma pare hmm. nga paas cokkaas ma ni ma ah. pare daw yéeg la gis nga yéeg bi ni muy dalee. bi day dal day dal ma si war. te loolu soo parce que bii bu dalee damay song. nga pare daw yéeg la yéeg mu dalee. damay jeex tàkk. moo tax may loxo bii mu paree nii. Mm. mënoon na paar daw yéeg ko mais bu amee distance du ma ko bañ. Mm. ah bu amee distance nii nga cokkaas ma nii. Mm. léegi boo lancé du la jot. nii gis nga moo la paree du gis nga moo mm-hmm. Mm-hmm. bu lancé pas bu lancé bu lancé coup da nga koy paree ànd mm-hmm. jot la. da ah. loxo bi jóg nga pare daw yéegaale ko gis nga ko yéegaale kii lu ne ngi fii lu ne ngi fii moo tax xeex dañ koy jàng. xeexu arène. dafa am yoon du boxe wax naa ko benn xale bi léegi. ndax hmm. gis jàngal box day fekk mu mën a bëri. Hmm. bu fekkee mbër nga di bëri arène da ngay ki lay jàngal box xeex da lay jàng. day xam xeexu ñaari xeex yi du ñu benn. du ñu benn parce que hmm. bëri dafa am song te xeex box amul song booy. su ma la dóoree nga seetaan nga xaaj ci garde nga aj sa loxo ci kaw. loolu koy jox nga ma yoon ma bëtt la tuuti song dem ci parce que duñu laaj ku dóor dañu naan ku daan. comme dañu laaj ku daan kay dama ñëw boo xàccee ayca ñu demaat ci combat bi bas gis nga pare bu xam nga bu li amoon na loolu. waaw waaye du ko mën de parce kii da ko sori. Hmm. waaw dafa pare mais kalaate bu yëg ko. ñu demaat ñoom ñaar. loolu ba tey pied droit bee ko indi. pied droit wu Serigne Ndiaye 2. waaw ça jàmm ko. Hmm. Hmm, jibu ko. ñu ngi léewtoo fii. ku nekk nga xool dafa mépp mel ni ku bëgg a dem. waa loolu xob la loolu xob la olof loolu ko xob di wax. mooy mépp rek. mépp dóor lay doon xob moom mooy song. gis nga dañu wutee. mépp mooy koy mm-hmm. bëgg a dóor koy bëgg dóor. ngay mépp pour dóor ko. Mm-hmm. waaye mépp pour song am na mépp xob nag. Mm-hmm. da xob pour song. xob mooy nga def xob waa ji mu yemet mu dem mu sigi wala xob bu sëgg mu ne wàpp nga dóor ngàdd wala nga dóor ko mu daw sigi. nga daw paquet loolu mooy xob. xob ayca fii ah, waaw Serigne def na loolu. waaw demal xob na waaw. ba tey Serigne Ndiaye moom xeex bi la indi rek. xeex bi la la la favoriser indi fii. gis nga voilà xalaat très teel ma fii teel ma fii. nga fii. Mm-hmm. nii kenn du mooy tokku. parce que tey jii bu fekkee ne léegi moom li ma la wax nii. Mm-hmm. moom jam na ko droite bi mais bi mu xool droite dafa sëgg xoolu gisul waa ji. dafa sëgg gisul bi. du gis ko du ko gis ba yow tam defee nii kay. Mm-hmm. soo ma xàccee ma xam def nii nu ma lay gisee. yow léegi sa gauche wala sa bu ñëwee damay dem teel bii bu ñëwee tamit daf may nemmal rek maa nga suuf. Mhm. mais dafa waroon siggi dafa waroon toog ci tànk yi siggi xool ko. Mhm. bi mu xobee. Mhm. day siggi nii toog nii siggi xool ko ak garde bi ci kanamam. loolu waroon def. mooy dafa sëgg. mais li ma jaaxal fii père. Euh, libidoor loxo bi mu ngi en garde. fi mu toll nii garde loxo bi garde bi dafa dégagé. non du garde du garde. du que légo bi dafa dégagé wu. dafa dégagé wu rek ne nii. gëmm déga dégagement rek la def. pour daw foo nëbbu kanam gi. loolu dafa nëbbu kanam gi rek mais du garde. garde da xool coup bi pour mu bañ a ëgsi. comprendre ma wax hmm. garde kay bu ma ko defee ni mu ngi mel nii nga xool ma nii ngay xool sama kanam nga xaaj bu gënee ba mën la génne hmm. nga mën ma jam kuu nii jam ma kuu ma mën a xool pare ko waaye bu ma nee nii gisuma la waaw bu ko bi di ñëw doo ko lu ma la gis parce que damaa sëgg hmm. dama la gis moo tax dafa waroon toog ci tànk si gi aj garde bi loolu moo tax waaye kii dafa dégagé wu ay ca moo tax gis nga kii xam nga léegi gis nga gis nga bi laaw na bëre laaw na gauche waaw jox na droite indi gauche bi. waaw la dafa laaw gauche gi dafa sëgg. gis kii bi mu sëggee na fii. Hmm. dem la waroon def. fii. Hmm. comme laaw na kii laaw na gauche ba ba dem ba jox ko hmm. wet. mais xool tey ci ni ñuy taxawee nii baax ma. c'est que dama la laaw gauche yow koy jox nga yoon bi. jox nga ma yoon bi di. Riyaan mi ñëw na. fii la bëri bi waroon jeex ci moom. mais moom bi mu dóoree. fii dafa mel ni day kaawoo. déedéet gis nga fii gis fii bi mu laawee bii dalu ko. bii gauche bi mu laaw dalu ko. Mm-hmm. alors gis nga gis nga xam nga bés bi daal laaw na fi sax demal. waaw. waaw ci droite la dóor. waaw droite bi la dóor. Mm-hmm. nga bi mu dóoree droite bi mais bi mu sëggee nii. Mm-hmm. bu fekkee jëlul coup ba kaawa. bu fekkee coup bu fekkee daal coup bi dalu ko. waroon dem rek. parce que gauche bi gauche bu ñëwee du fa fekk dara. donc gauche bi fekk fa dara sax. mu laajee gauche bi fekk fa dara bi mu sëggee fii dafa dem am na fu muy sëggee avancé na moo na a dem. gis nga. fii gis nga voilà. ñu li mu xool dafa waroon xool mais fii la xool xoolul fële xoolul tànk yi xool xam nga fii la fu mu jublu. Hmm, ci suuf la jëm. ah ci jublu mais nag léegi bu fekkee ne fii jël maanaam fii gisuma coup bu ko fi dal xam ne bii war naa tàggu ak sagoom ba du mën a siggi songo ko. loolu moo jaaxal ñu bari parce que coup bi bokk na ci coup bi daaneel Libidor. ñuy laaj ba xam coup coup bi Serigne Ndiaye dóor ko. Ah, mooy direct bu ko droite bi bii mu ko dóor droitam bi waaw droite bi hmm. kon droite bi rek ko mën a wàññi. parce que hmm. kii bii gauche bi dalul goos bi dallu parce que gauche bi. bi muy ñëw fekk na droite bi wàcc. gis nga waaw waaw parce que ñu dem bu droite wàcc. ñu dem léegi kon kon gauche ba kon droite ba ci boppam moo ko wàññi avant mu yegg si fii. Mhm. bi dal na. Mhm. droite ko wàññi avant mu si fii. ñu dem bas ñu xool combat bi. voilà gis nga gis nga léegi bi mu gisee mu titubé. Mhm. mu xam ne kii kat laal naa ko muy tërëf mu daw jékkali ko. parce que laaj ñu ko doon dañ naan ko daal. waaw loolu moo tax loolu tax mu ñëw jékkali combat bi moo tax kii combat bi am njàngat bu rëy gi ci moom ci li mu doon bi ñu dem sëñ Bass waaw voilà la ko daane mu jekkale ko ni daan ko jël boo xam benn mhm. waaw mais nag it euh, bëri bi daal mhm. ci ni ma ko gis-gis mais li mu door war naa toog jàng maanaam defaat taxaw seetlu mhm. parce que combat bu ñu la ko joxee nga dem bëri ko ñàkk ko te ngay champion muy champion yéen ñaar ñëpp ngeen war dajewaat ca kaw parce que làmb bii rek bu leen yàlla may gudd fan seen làmb làmb ay revanche ngi seen kanam nga kii kii tey Serigne Ndiaye mën naa neex rek wala libidoor bi neex la ba dabaat ko ci làmb ji laaj ko mhm. saa buy bañ naan du ma ko jël moom nangam nag ñu bëri waat xam nga mën na nekk mhm. waaye bu boobaa nag na jàngaat lii parce que bu demee man bu doon man damay def affaire sëriñ yeeg jibar yeeg laay teg fële mhm. du ma ne biteel bee ma daan du ne fas ma daan du ne daraa ma daan xam nga lu may daan toog un technicien mu toogal man ko yan laa def ci biir bëri bii mooy la taxawal ma woon la nga taxaw mën a jàngale ne bi nga defee nii nii nga waroon def si waa ji defee nii nii nga waroon def hmm. loolu yaakaar naa ne mooy xam-xam bi wóor ba nga xam ne bi ëllëg si biir koo dajee keneen du la ci mën a daan hmm. waaye bu fekkee da ngaa bàyyi erreur bi mu def nii su ko ci keneen tam dina ko ci daan hmm. waaw te loolu mën naa ñàkk moo tax boo doxee dara fakkas su ba sa uum dagg wala sa yel dagg wala sa baaxam dagg bu dagg ba xolli xolliku soo doxee ba jaaratu ba toll foofa war ngaa xool fii de xeer bu mag a ma fakkas sa ba sama baaraam bi dagg xaaral ma ma teggi ko. Mm. am déet. Mm, wala dangay dem fekk saatal la. Ah, kon nag mu ko. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen yéen ñi nga xamante ne làmb rek ngeen bëgg mm. tey yéen a ngi jàng ci lépp li nga xamante ne leçon la yu leen père di jox ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax euh, bàyyi jiili loon ak père Birahim loolu lañ leen indi loon ci jàngat làmb père ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax waaw jërëjëf may kontaan toujours ci taxanaa yow parce que question yi ni nga koy posé leer na nañ wax dëgg mhm. yàlla mhm. amul lenn loo ma ciy laaj loo xam ne eh, xaw naa lënt mhm. ni ma koy laajee leer na ma itam maa ngi jéem nag tontu lu leer xaw ma xaw ma ni la koy waxee leer na wala leer na waaye man maa ngi jéem oh. waaye man nag sa côté moom ni ma koy laajee leer na nañ loolu xam laaj lu ma xam wax la waaw ñeneen ñi ñuy seetaan tamit ci Wassare Lamb di ko bégoo yéen tamit ñu ubbi leen bunt bi rek képp koo xam ne gis nga ci loo xam ne rek xëy na buñ ko defoon nii mu gën a baax ay eh, bu boobaa tamit tàll nañ la loxo nga gën ñoo teg ci yoon yi mu gën a baax rek waaw hmm. lenn rawatina lenn tamit yéen ñi nga xamante ni yéen ay seetaan bépp combat bi ngeen xamante ni bëgg ngeen père analyser leen ko bu ngeen commentaire incha allah dinañ leen indil combat boobu père leeralal leen ko ba mu leer naañu père benn problème ah. kon nag de tàggu te mu yàlla bu mu si mujj tàggoo rek jërëjëf père di kontaan ci jërëjëf euh, su jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokk yi kon noonu lañ leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf ndaanaan laa ñaari yoon bol laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yeley boor bàyyi fas ñoom cuuna rëy ma waa na roy maa ko baaxi ñii ma yor